السلام عليكم ورحمة الله بكين لأنه يجد لين زيار لأن حق لأن برم سبحانه وتعالى بولين يجقل حديث تيب رفع وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له رواه أبو داود حديث بينون تبي صلى الله عليه وسلم فوهني يلا ربنا كوي باري يقول ak kakayu baariye goobal xadis bi abu daawuda moo ko solo baariye goo mooy lan masalan sharia daf ñu jàngal ci texte ci yoonu lislaam ki nga xam ne dafa jël soxna bu ko fase ne ko fase naa la fase yi mat ñetti fase mane ne ko ma ne ko fase naa la ñetti yoon kooko du ko mën a takkaat fekk ndaw sa amul jëkkër ba tas ba tas ak ñetti yoon ñetti fase mu door koo mën a jëlaat du caageen ne nag pour ñetti fase day taxawee foog mu ne ko fase naa la ñetti fase rek am na fee yoo xam ne bu amee day tekki ne moom waa ji dogoo naag ndaw si définitivement masalan mu ne ko suma la xamee yàlla na xam sama wajur ci mel noonu wala mu ne ko fase naa la suñu diggante jeex na tàkk abadan ci misaal genre wax yooya day tekki na moom ko naag ndaw si boobaa ndaw soosu mën naa dem sëyaat ak keneen léegi waa bu fekkee ne dafa bàyyi ndaw si ba pare dem ba ci biir xelam nekkaat ci ndaw si mu leer ko ni seen diggante mu daganaatul fekk ndaw si amaatul beneen jëkkër ba tàggalikoo kooka mu dem daal di kompaloog ben nit benn góor pour kooka takk ko tak boo xam ni masalan day def ak mom wer wala ñaari wer après mu tàggale ko ak mom pour mom mu mën ko jelat loolu lañuy tuddé tuddee baari yego loola dafa haram ci l'islam dafa haram ci l'islam bu du mata baye xel la fu ko def yalla sallallahu alayhi wasallam neena na rebb nako ko ak kiko ko ki ka complot mu dee ko ko defal ñom ñaan yëpp yalla rebb na leen ñu bàyyi xel ne xam ne sëy du caaxaan surtout gone yu góor yi nga xam ne dañoo jugtee jël jabar te mënaguñu yor ginaar ñu mat a bàyyi xel lay il ñu yar seen bopp ci seen i kàddu ndax dof-dof lu ba xëy ba tàggalikoo jigéen bëgg a xëy bur koo jëli dugg ci imaam yi di seet ku la ko lijjanti loolu diine da nga war a am fayda ba xam ne ngay yore soxna nga téye ko xam ni nit ku ne mënul dund ak ñàkk problème ñàkk ay difficulté mu gérer ko. boo ñàkkee bopp nag ba dugg ci xëy ba tàggali koog moom bo defee kooka li la koy tax jëlaat mooy foog ndaw soosu dem am beneen borom kër ba tàggali koog moom door ko mën a jëlaat bàyyi ko xel bu baax léeg-léeg nit ñi lijjanti ay sëy yoo xamante ni sëy newatu fa tas na bu yàgg buñ leen boolewaatee it njaaloo moo fay nekk rek doom ju ci judd judduwul ci yoon waaw ne léeg-léeg am ñu koy lijjanti dem négocier ko ne am ah, moom de defaraat nañ ko fekk lañ defaraat dara newu fa. lu dul ñaar ñu ànd ñoo xam ne seen diggante la daganul loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax yàlla boole ñu dimbali